tekki ne ko ah doomi aadama yaa ngi ci sama kaw man suuf bëgg alal ba doo seet lu araamak ak lu araamut waaye day dana am bis nga dugg ci sama biir mu wër la wet gone man suuf su boobaa da rëccu lu tax daawoo seet lu araam ak lu araamut loo am rekk jël boobaa da ko rëccu de tekki ne ko ah doomi aadama yaa ngi dox ci sama kaw di daagu waaye danga nga mujj ñu suul la ci sama biir man suuf nga torox ba doota la daagu ne ko ah doomi aadama tey day yaa ngi ci sama kaw jant beeg weer wi di la leeral ngay gis fooy dox waaye boo tuut day bis boo ñëwee ba nekk ci sa biir danga nga fa fekk lëndëm goo xam ne dana la jaaxal soo ko waajalul day soo duggee ba nekk ci sama biir da nga fa fekk ay lëndëm yoo xam ne da nga xam ne matoon nañoo waajal te ke ko ah doomi aadama tey de moom yaa ngi dox ñu bari ànd ak yow nga wétliku lool waaye day dana wóor dana am bis nga nekk ci sama biir yow dong dong wét fa lool doo gis kenn kenn ku lay wétali lu may sa jëf rekk wa fil xabar yi nekk na ci xabar innal xabra naka bàmmeel ba yunaadi dana woote ku la ci bépp bis talaasa marraat ñetti yoon yaquulu day wax ne anaaman baytul waxshati maay néegub wéetaay maa zat daxarta analoo denc lii ñeel ma anaaman baytul zulmati maay néegub lëndëm anaaman baytul dóodi maay néegub ay sax maasa ahdatta ana loo xaroo mooy loo waajal lii ñeel ma ba tey xabaar ba nee na doomi aadama bis bu ne bàmmeelam ba nga xam te li mujj bu ëllëgee day waxanteeg moom lu mat yetti yoon bu ci ne mu ne ko ah, fii nga jëm si ci man man bàmmeel fii de moom wéetaay rekk fi nekk danga nga jéem waajal loo xam ne moom nga fi denc ba boo dikkee muy sa wéttal ne ko ah man ba mel day néegub lëndëm laa néegub ay sax laa maanaam ay sax ak lëndëm moom laa ame kon nag ndegam néegub lëndëm laa jéem la waajal luy tax boo dikkee fekk fi leer ndegam néegub ay sax ak ay metit la jéema la def lu baax ba boo dikkee sax du la lekk mbaa bu la sax dee lekk it fekk rek loola zahir saa waaye baatin ba moom texe la waxiil waxees na ne innal qabra naka bàmmeel ba yunaadi dana woo doomi aadama kulee man ci bépp bis xam sa marraat juróomi yoon di wax naa anaaman baytul waxshati maay néegub njaay àllu maanaam maay néegub wéetaay fa jaxal defal lii ñeel ma mu unisan aji wettilee wa anaaman baytu suaali munkarin maay néegub laajub malaaka mi tudd munkar wa nakiirin ak nakiir fa aksir barilal xale ci man mu unisan aji wettilee fil qur'aani ci alqur'aan wa laa ilaha illallahu ak laa ilaha illallah teg ca muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa anaaman baytu zulmati maay néegub lëndëm tanawwir nii na nga ma leerale bi salaati leyli ci julli guddi wa anaaman baytul waxdati maay néegub wéet fajaxal defal lii ñeel ma firaashan ablal waxoo te moom alxamalu mooy jëf ja assaalihu ji aji yiw wa anaaman baytul afaax yi néegub ay jaan laa fa amal jëfal li ñeel ma atriyaaqa lugg ga waxoo te moom lugg ga mooy bismillahi wa ihraaqu dumooxi ak bari la tuur ay rongooñ mu ne nee nañu bàmmeel day bis bu ne dana woor doomi aadama juróomi yoon yoo xam ne bu ca nekk dana am lu mu wàqanteeg moom bu ko déggee bu ko déggut ba ci jëkk mooy ana baytul waxshati fajxal lii mu unisan bàmmeel day wax doomi aadama ne ko ah man day damay néegub wéetaay maanaam boo tuut day boo dikkee doo fa gis ku lay wétuli mbaa lu lay wétuli kon nag jéema la góorgóorlu ba boo dikkee fekk fi ku lay wétuli te ki ne ko ah man day damay néeg boo xam ne ku dugg ci man am na yaari malaaka yuy laaj kee tudd munkar kee tudd nakiir kon nag góorgóorlu ba gannaaw boo wutee lu lay wétuli fi man ngay fàttaliku laajug ñaari malaaka yooyu ba boo dikkee rek daal leen di mën a tontu fa saasa te loolu mooy ngay bari la jàng alquran ak bari la sikkar laa ilaha illallahu muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko loolu de mooy tax tontu yaari malaaka yi yomb la wax ba ca topp mooy ah doomi aadama man day néegub lëndëm laa xeel ba waajal ma bu baax boo dikkee fekk fi leer te loolu mooy julli guddi julli guddi dana tax boo dikkee ci man fekk ma leer naññ ba ca topp mu ne ko ah doomi aadama damay néeg bu ràpp ràpp boo xam ne day ab lal nekku fii fexeel ba waajal ab lal boo ëndaale te mooy rek bari la jëf-jëf ji yiw ndax muy lal boo xam ne boo dikkee fekk ñu tegal la ko fii ci man nga noppalu ci ba ca mujj nag mooy mu ne ko ah doomi aadama damay bu bari ay jaan mbaa indiwaale nga lugg goo xam ne moom ngay luggee jaan yi luggi day mooy ngay bari la wax bismillahi rahmaani ak lu ko niru ci xeeti tudd yàlla yi te di bari la sotti ay rongoñ ndax yàlla yërëm la wa fil xabari nekk na ci xabar inna ashaddal xaali naka gën jaa tari mbir xalal mayti ci néew ba awalu ma yoodaxu mooy njëlbeenub ba ñu ko tëralee fii laxdihi ca bàmmeelam ba wa yuux saa te dee fi sëkk alayhi ci kawam fi turaabi ca suuf sa wayar jixu tey dellu anhu bàyyi ko aqaaribuhoo ay jegeñaaleem wa awlaaduhoo ak ay doomam wa ahibbaauhoo ak ay soppeem wa yusallimuunahoo te ñu koy jébbal ilaa rabbihi jëm ci boroomam maha rabbihi ànd ak boroomam qaala alayhi salaam li Aïcha te ñeel Aïcha yaa umal muminina yow ndey way gëm ñi ku yonante bi yoroon rekk dañ koy tudde ummul muminin ndey way gëm ñi yàlla ndax li suñ boroom ne wa aswaajuhu ummahatuhum te it gannaaw yonante bi kenn sañta takk kenn ci ñamu waroon wala an tankixu azwaajahu min baadihi abada nga xam ne benn jullit sañta takk ku yonante bi yoroon ku yaay la ci moom jullit bi moo yaayama yam ci moom daal inna haasa naka lii la shadidun aji la tuma qaala topp mu wax ko ne ko i'lami xamal yaa xaayisatu yow soxna xaayisa ne anna ashaddal xaali naka gën jaa tari mbir almaytu ca néew ba xiina yadxulu ci waxtu wa dana tàbbi lay doon xaalis ci moom alxaasilu aji sang ja li yax silexoo ngir mu sang ko fa yuxriju te muy génne xaatama shaab bi jaarub waxambaane ba min usbuhihi tukkee ci baaraamam wayen sixu te muy summi xamisal xaroosi mbubbum séet ba min yadihi ci loxoom wayar faxu te mu yëkkati ximaamatal mashaayixi kaalak sëriñ sa wal fuqahaa yi ak way dégg fiq yi min ruusihim ci seeni bopp fa di tey woote ruuxuhu ruuxam nga bayna rasihi ci diggante boppam bi sawtin ci kàddu yasmaahu kook dana ko dégg kullul xalaa'iq yi mboole mbindeef yi illal jinna ndare jinne wal ins ak nit wa yunaadi tamit woote fa yaqul te muy wax yaa yow aji sang ji billaahi maa ngi lay jéptaan ci yàlla xaleeka dénk naa la antan siha nga summi tiyaab yi sama yére yi birifxin ànd ak ñëwante fa inna fii haadihi saahati naka ci wéru waxtu rekk xadd feraxtu laa noppee arjahu di dellu min bi malakil mawti bàyyi ko ci xarab malaakam deemi wa ida subba ndeem sotteef na xaalihi ci moom almaa u ndox ma saaxa mu yuuxu te daalika naka noonee yaqul di wax billaahi maa ngi leen di jéptaan ci yàlla aleykum dénk naa leen yaa xussaalu yéen way sang ñi laa tajxaloo bu leen def maa akum seen ndox xaaran mi aji tàng wala baaridan du caagéenu muy aji sedd fa inna jasadi naka sama yaram bi majruhun lu ñu jam la bi xur bi xuroo ji ci génnuk ruuga fa in xasaluuhu ndeem sang nañ ko yaqul mu wax ne billaahi maa ngi leen di jéptaan ci yàlla aleykum dénk naa leen yaa xusaalu way sang yi laa tamassooni bu leen ma laal massan ak laal xawiyan kuy aji dëgër fa in xasaluhu jee mooy buñ ko tàmbalee sang maanaam fa inna jasadi naka sama yaram wi majruhun duñ jam la fa isa faraxoo ndem noppi nañu min xaslihi ca sangam nga wa wadahuhu te ñu teg ko fil kafani ci càngaay la fa ida shudda ndem bëggeef naa takk mawdihu qadamayhi bérébub yaar ndëggoom ya naadaa woote fa yaqul te muy wax billaahi maa ngi leen di jëptaan ci yàlla xaleykum dénk naa leen yaa hussaalu yéen way sang yi laa tashuddoo bu leen dëgëral bu leen takk alkafana càngaay la xaalaa rës ci kaw saa bopp xataa yaraa mbate gisee wajhi sama kanam gi ahli sama ñoñ wa maali ak sama alal wa awlaad yi ak samay doom wa qurabaa yi ak samay jegeñaale fa inna haadal yowma naka bi la bis aaxiru ruyat yi moo mujjug sama gis lahum ñeel leen fa inna fii haadal yowmi naka ci bi la bis ufaariquhum laay tàggoog ñoom fala araahum te duma leen gisati ilaa yawmil qiyaamati ba bis penc xabar ba nee na li gën a metti ci ki faatu day mooy ba ñu ko suulee sëkk ko suuf jal ba mu jekk ñu ne wëruñ bàyyi ko fa moom dong lu ko waay jege-jege di doom mbaa ngay waajur mbaa ngay xarit rekk dem nga bàyyi ko mu làmb làmb dajul lu may bàmmeel rekk suuf war ko ci wet gune ak i bant mu des ak yàlla boromam képp képp képp loolu day nee na lu méttee metti la lu tiis a tiis la mu teg ci wax soxna Aïsa ne ko ah soxna Aïsa lii day metti na loolu waaye lépp rekk a metti ndax kuy door a faatu ba dara desut lu may rekk ki koy sang ñëw sang ko ka koy sang bu agsee bu dee waxambaane xëy na dana fekk mu takkan ab jaaro bu daldi sumi jaaro ba teg fee bu dee jigéen ju ndaw ju doon door dugg ci néegub seet xëy na yére yam solol muy yére ku toll foofa ci seetoog wanewu ma nga ca moom ba tey moom mi sang mu daal di koy summi teg fee ndax bëgg a tàmbalee sang bu dee kilifa boroom xam-xam wala mag moo xam ne daal xay na dana faral di kaalawu moom mi koy sang daal tàmbalee dindi kaala ga ak lam soloon ndax bëgg a sang bu dee ko daa sol mbaxana kenn ku ne daal lam fekkan rekk mu nekk ci yow moom mi sang loola lay dindi daal di bëgg a tàmbalee sang su boobaa nag nee na rooga ci boppam mooy tolloog bopp ba di wax ca kaw kàddu ga xumb xum ba nga xamee ne lépp lu yàlla sàkk day dégg kàddu googu ba mu des nit ak jinne nit ak jinne rek ñoo dul dégg kàddu googu nga xam ne moom la ruu ngay wax day wax ay waay ji yow muy sang summil sama yére yi ndànk ndax léegi kat la ma malakul mawti di door a bàyyi ndax léegi lay door a dindiroo gi ba mu set kon nag sumil yére yi ndànk su sumee ba nga xamee léegi tàmbalee sang rekk sot ndox moo ci topp mu ne ko ay ji ndox mi bu mu tàng ba ëpp bu mu sedd ba ëpp ndax sama yaram yi moom ruu gi ci génne génn gara metti woon lool ba yaram wi daal mënta dékku lu sedd bu baax mënta dékku mu tàng bu baax kii sang nag bu tàmbalee sang mu ne ko ay waay ji bul bomb bu baax ndax sama yaram wi kat mënta dékkooti ak bomb bu baax a baax déedéet bombal rekk ndànk-ndànk su sangee nag ba àggal ba teg ko ci kaw càngaay la lëmës rekk des ci ak yeew mu ne ay waa ji yeewal sama tànk yi ndànk te bala ngaa yeew bopp bi moom bàyyil ba sama waa kër ak samay jegeñaale ñëw gis ma xool ma xoolut mujjantal ndax xam naa ne tey jii moom laay mujje gisanteeg ñoom ba bis penc fa isa xaraja génn almaytu néew ba min daari yi tukkee ci këram naadaa mu woote aydan ba tey fa yaqul wax billaahi maa ngi leen di jéptaan ci yàlla aleykum dénk naa leen yaa jamaahati yéen sama mbooloo mi taraktu bàyyi naa zawjaati samay soxna araami la ñu di way ñàkk jëkkër fala tu'zuhunna bu leen leen lor wa awlaadi bàyyi naa samay doom ay taama ñu di ay jirim laa tu'zuhum bu leen leen lor fa inni naka man xarajitu génn naa alyawma tey ji min yi bàyyi ko sama kër gi wala arjihu te duma dellu ilayha jëm ci moom abadan mukk wa isa xamaloo ndéem yenu nañ ko dafa def nag xàll yi ca kaw jaat ga xam daa jublu xëy na daa jublu ila sariiri jëme ko ci jaat gañ koy teg yaqul dana wax billaahi maa ngi leen jëptaan ci yàlla xaleykum dénk naa leen yaa jamaahati yéen sama mbooloo mi an laata ji xaloo nii ngeen bañ maa def fii xabri ci sama bàmmeel bi xataa astamiha mbate ma dégloo aswaata awlaadi kàdduy samay doom wa aq wa aqribaa yi ak samay jegeñaale fa indi naka man alyawma tey jii ufaariquhum danaa teqalikoo ñoom ilaa yawmil xiyaamati ba bis wa isaa wuddi xandeem tegeef na ko àll yi ca kaw jaat ga wa machaw dañu dox salaasa xutuwaat ñetti jéego naadaa mu woote bi ci kàddu yasmauhu ku dana ko dégg yasmauhu kullu shay'in ñépp mbir lépp lu mën doon in la saqalee ñi ndara yi yaari ndijj bopp yi mooy nit ak ginne yaqul day wax yaa ahibaa yi yéen samay soppe wa yaa ixwaan yi yéen samay mbokk wa yaa awlaad yi yéen samay doom uusiikum danaa leen dénk laa taxurrannakum bu mu leen war alxayaatu dunya dund adduna gi booy teqale nga ne alxayaatu dund gi addunyaa gi gën a suufe wala yaxurrannakum te bu mu leen war mukk billaahi ci yàlla alxaruuru warekat ba muy seytaane kama xarrat niki mu ware biyee ci man wala yal te bu foyee bikum ci yéen ak zamaanu jamono kama laay ba ni mu foyee bii ci man itabiru waaru leen bii ci man fa inni naka man taraktu bàyyi naa maa la nga xam ne jamaatu dajale woon naa ko li warasat yi ñeel sama way doon wala yaxmiloona te duñ yanu min xati'ati ci sama ñaawteef shay'an dara wa duniyaati àdduna tuxaasibu nii dana ma xisaab wa antum te yéen tat baaxoon yéen a ngi topp aljanaasata tàdd gi tuma tatrukoon yi topp dangeen ngeen may bàyyi rekk xam naa ne wa ida sallaw dem jullee nañu xalaa janaasatihi ca tàddam nga waya jëxutee tàmbalee dellu ba'du ahlihi lenn ci ñoñam wa asdiqaa'ihi ak ay xaritam minal musalliina ci way jullee ña yaquulu mu tàmbalee wax ne yaa ixwaan yi yéen sama mbokk yi laa tarjion bu leen dellu fii haadihi saahati ci uli waxtu xataa tadd finoo nii mbata ngeen ma suulee wa isaa wudiha ndem tegeef na ko fil qabri ci bàmmeel ba yaquul dana wax ne yaa ixwaan yi yéen samay mbokk xalimtu xam naa ne ànnakum naka yéen tatruku na nii da ma bàyyi fil xabri ci bàmmeel bi waxidan mbir mooy aji wéet faridan tey aji mooy tey kenn walakin waaye laa tatrukoo nii bu leen ma bàyyi bi daawatin ci ak ñaan saalihatin guddi aji yiw wa isaa wudixandeem tegeef na ko fi laxdi ca bàmmeel ba waddu fi na te suuleef ko ba noppi yaqul dana wax ne yaa warasati yéen sama way doon yi maa nga xam ne jamaatuhoo dajale woon naa ko minal maali ci alal day traktuhoo bàyyee naa ko lakkum ñeel leen falaatan saw nii kon bu leen ma fàtte bidduxaayu ci ñaan wa sadaqati ak saraxe wa inni naka man ahtaaju danaa aajowoo ileekum jëm ci yéen al yow ma tey jii waxadd àllamtukum te jàngaloon naa leen al adaba teggiin wal quraan ak al quraan falaatan saw nii kon bu ma fàtte ba tey rekk nett bi nga xam ne moom la yonent bi nett li woon muy wéy dafa xaw gudd ndax dane woon rek ci njëlbeen nga doomi aadama ji su ruu gi tàggoog yaramam ba ki koy sang ñëw bay tàmbalee summi ya muy summi ndax man ndax mën a tàmbali cangaay li te ne woon ruuga day tolloog bopp ba di wax ca kaw kàddu gu xumb xumb goo xam ne lépp koy dégg ba mu des nit ak jinne ay waa ji muy sang sang ma ndànk ndax léegi kat la malaakam dee mi di door a noppee ci génne sama ruu gi noonu la ko toppee woon na ba agsi woon ci suñu sangee bari ko solol ay yére bay takk tànk ya bay bëgg a takk nag bopp ba mu ne woon bu leen takk saa bopp bi kat na ngeen xaar ba sama waa kër ñi ñëw gis ma gis bu mujj ndax xam naa ne tey laay mujj gisanteeg ñoom da ca topp nag mooy li mu ne suñu waajalee ba jekk ba di ko génne kër ga day wax ca kaw li kaw lépp li ko dégg ba mu des ñu da génne naa ah maa ngi bàyyi sama soxna yi day amatuñu jëkkër ndax maaroon seen jëkkër amatuñu ku leen aar ku leen toppatoo kon nag yéen mbooloo mi na ngeen ma dimbale bu leen lor kenn ci ñoom sama doom itam maa ngi leen di bàyyi di ay jirim waaye dimbale leen ma bu leen lor kenn ci sama doom yi xam naa ne maa ngi génn kër gi tey ji waaye lu yàgg-yàgg du ma deseeti mukk ci sama kër gi kon nag bu leen ma wuutu ci sama njaboot gi lu may rekk taxawu leen te yërëm leen buñ ko dee bëgg a teg nag ci lañ koy teg ngir mu yóbbu ko ca fañ koy jullee mu dellu waxati ca kaw li kaw ne ah def leen ndànk may leen ma ma déglu kàddu yi samay doom ak samay mbokk di wax ndax xam naa ne tey jii laay mujj dégg seeni kàddu buñ ko tegee nag ci kaw jaat ga mbaa kaw sareet ba mbaa daal lañ koy teg ngir yóbbu ko fañ koy jullee mu waxati ca kaw li kaw net li bi woon roogaay wax te roogi tàggoo naa yaram wi waaye rooga la ne woon mooy wax ca kaw li kaw kàddu goo xam ne lépp koy dégg ba mu des nit ak ginne ne yéen sama soppe yi yéen sama mbokk yi yéen sama doom yi naa leen dénk ndax kat àdduna mi dafa mën a ware seytaane mi itam mën a ndax lool doomi aadama maa ngi leen dénk nag ni ma àdduna ware moytu leen boobu leen ware noonu fii mu nekk kat mën ngeen waaru ci sama mbir ndax ndax gis ngeen li ma amoon lépp ci alal mi ngi noonu ma bàyyi fi samay doono ñoo koy jël te kenn duma gàddul dara ci samay bàkkaar ak ci samay ñaawteef xam naa ne it yéen a ngi topp ci man di ma gunge waaye ñun àggee rek fu ngeen war a yem yem fa loolu xam naa ko suñ ko gungee nag ba ca fañuy jullee ñu daal di jullee ba àggal nag am ca ñenn ñu bëgg a wàññiku ñenn ay mbokkam ñeneen di xaritam mel ni daal naruñoo xaar te àgg ci armeel yi dañoo bëgg a wàññiku rek ci biñ jullee ba noppi su boobaa dana waxaat ca kaw li kaw bu ñu yàkkamti mukk bay wàññiku yam ci jullikaay bi rekk bañ àgg ca armeel ya déedéet ñëw leen gunge ma ba suul ma ba àggal suñu àggee nag ca armeel ba ba teg ko di waaj a suul nag mu ne yéen sama mbokk yi xam naa ne bu ngeen ma suulee da ngeen ma bàyyi dem loolu la yàlla dogal waaye nag lu yàgg-yàgg daal ba li ma fàtte ci di ma ñaanal fu ngeen toll loolu nag mooy bu ñu agsee bay waaj a suul lay wax loolu buñ suulee ba àggal nag muy waxanteeg ñi nga xam ne ñoo koy donn naa leen li ma bàyyi ci alal lépp day yéen laa ko bàyyil dama bëgg nag ngeen di ma ca saraxeel ngir yàlla booleeg ñaan ga dellu ma ñaanal di ma saraxeel ñaanal sarax moom maase nañ ci ne faaw rekk ñëw ba jot ca moo tax dénkaaneem bu mujj mooy yéen ñi nga xam ne yéen la bàyyee sa alal ngeen di ma doon daal doo ma ci saraxeel te di ma ñaanal bu leen fàtte ne maa leen yaroon jàngal leen alquran yar leen yarub diine xamal leen nu ngeen di àndeek waa àdduna kon nag dee leen ma fàttaliku di ma saraxeel te di ma ñaanal xikaayatun li ab nettali la ruya nettali